jàngeen jëf xibaar bi leen di gindi fii rek la ci Sen TV bii lépp jotaayu xibaar dañu koy doo war ak wàllu politique PDS lay doon ak seen jongante yi nga xam ne rek nam nañu ko amal si seen biir muy nag jongante bu nga xam ne day jëmmal eh, démocratie bu nga xam ne rek ñoom ñoo koy woote du samay kàddu Babacar Gueye moo ko ne Babacar gay moo yor sañ wax gi ci biir parti bi dafa xam ne sax ni eh, jongante bu nu mel dafay gis ne rek képp ko nga xam ne Euh, da ngaa nam kon euh, samp sam dënd jongante 2017 bi te nga rek wuyoo parti démocratique sénégalais nga fësal sa bopp ndax ak occasion la Babacar Gueye la ñuy teew lay kàddoom le PDS s'inscrit dans une dynamique nouvelle de choix démocratique de ses dirigeants aujourd'hui ceux qui réclamaient une dévolution entre guillemets démocratique ont le tapis déroulé pour justement participer à cette compétition Je pense d'ailleurs ça qu'il fallait euh, faire, c'est ce que j'encourage, que tous ces leaders qui ont une ambition d'être président de la République, de se présenter. D'abord, ça aiderait le parti à s'animer davantage, parce que la compétition sera âpre, et que le meilleur qui sortirait de nos rangs... Le jeu clair. Il est forcément clair, parce que certainement, je ne sais pas ce que va proposer la commission, mais si j'étais là-dedans, j'aurais demandé à ce que ce soit un vote au bulletin secret avec des urnes. Même s'il n'y a qu'un seul candidat, qu'on organise un scrutin secret, de telle sorte que celui qui sort de cette compétition ait toute la légitimité requise pour nous représenter. Et que les autres, qu'ils soient battus lors de cette compétition, qu'ils n'aient pas été candidats pour cette compétition, que nous nous retrouvions autour de l'essentiel pour essayer de battre le candidat Euh, Macky Sall. ñu jégalu kon si kàllaamay nasaraan gi Babacar Gaye la woon yor sañ wax gi ci parti démocratique sénégalais doon xam ne ne kon euh, bi lépp jongante occasion la si bépp rek képp ku nga xam ne responsable nga te nga nekk ci biir parti bi nga fisal sa bopp ngir nag euh, mën a doon. Euh, candidat PDS ñeel jongante tab bu njiitu réew mi 2012 2017 euh, plutôt mel ni kon politique la ñuy desandil AJ/PADS du am ab candidat euh, bu jëmale kon jongante 2017 yooyee voilà ba fii sax àddooguñu si bureau politique ba nag bu parti bi ñu ngaa wéyal seen i négociation ak waa APR ndax dañoo gis ne rek kon benn ab candidat ñu amandoo ko ñoom rek moom moo gën Mamadou Moustapha Dieng ay kàddoom la ñuy teewlu xal San Balde ba ñu liggéey ak APR ci élection présidentielle yu 2017 pour am benn candidat boo xam ni mooy doon suñu candidat donc et discussion yooyu nag dañu instruire suñu SE bon donc mu engagé ay discussion ak instance bi nga xam ni mooy correspondre ak suñu SE ak APR secrétariat exécutif secrétariat exécutif ñu waxtaan pour jàpp benn suñu benn candidat candidat boobu nag muy day doon candidat APR doon candidat ànd jëf. li ñu jàpp mooy dañu ànd ak ñoom pour am benn candidat bi gën si ñun ñëpp Sénégal fi mu toll defal laaj ñu am benn candidat buy porter changement yi nga xam ni am nañ fi. Euh, jongante 2017 lay doon waa ànd dooleel Khalifa Sall tànn kon meeru Ndakaaru ngir mu doon seen seenab euh, candidat euh, si janox taskatu xibaar yi kon la ñu ko xamle seen nekkoon seen a mbër Khalifa Sall la du Ousmane Tanor Dieng du waa parti socialiste du kenn ku koy dindi Babacar Diop coordonnateur bu ànd dooleel Khalifa Sall la ñuy teew lay kàddoom doomu la ak ndax tey jii bu ñu la fi taboon nga nekk ci parti boo mënti nekk sénégalais yi la bu ñu la wóoluwul du ñu la votel donc seetuñu ay parti nit la nit ñi di votel léegi tey jii ni bu dee Khalifa Sall la ñu porté ñu léegi nan la nit mën a taxawee ne Khalifa la comptable la si bilan Macky Khalifa Sall du député du ministre Khalifa Sall maire la Tanor tollu na foo xamante ne xam na ne sénégalais yi ñoo taxaw pour Khalifa Sall Tanor en tant que responsable moral bu parti socialiste je sais que du nekk obstacle mukk pour que sénégalais yi exprimer seen bëgg-bëgg à l'endroit de Khalifa Sall. leneen lu soxal bii jot ay xibaar sa Diourbel lay doon ndax soxna yi nga xam ne rek ñoo fa doon jëmmal bëccëg bi nga xam ne moom la ñu jàkkleel jigéen ñi ci àdduna bi wërngal këpp démb la woon si dibeex ji mu nekkoon ab occasion si ñoom ngir nag ñu becc seen boolu jàmbat lañu gën a yittewoo bokk na ci wàllum formation ñu tàggat leen ba noppi te jébbal leen ay financement Abdoulaye Diagne sa Diourbel. Mbacke nañ fi ay jafe-jafe ba léegi des na ba léegi des na bu baax am nañ fi problème mu santé ba léegi it des na bu baax ndax ci gox yeeg gox-goxaan yi ba léegi structure sanitaire yi eggagu fa am nañ fi ay problème mu pauvreté bis jigéen ñi ba léegi amaguñu ay structure yu nga xamante ne bi ne mën nañ ci yëngoo yëngu bu baax pour xeex ak ñàkk gi ak ndóol gi Euh, am nañ fi tamit ay yenn gox yu nga xam ne dañuy wax ay problème mu ndox ñenn ñi di wax ay problème matériel agricole am ñenn di wax ay problème mu jumtukaay lu mel ne ay moulin à mil ak yooyu donc am nañ fi tamit ay problème yu nga xamante ne bi ne jigéen ñi ba léegi am na ñoo xam ne jotaguñu seen àq ak seen yelleef dañ leen di violenter ci biir kër yi yan pexe la ñuy lal pour que li nga xam ne nag fi mu ne nii moo sooxe beneen yoon ñu mën ko am ci biir politique yi nga xam ne gouvernement bi n'est-ce pas moom lay doxal ñu xool ci yan fànn la ñu war a gën a dooleel jigéen ñi pour ñu am ci financement yi ñu yokk seen euh, présence ci instance de yi mais ñoom jigéen ñi xëy na bëgg nañu loolu gën a yokk lépp jigéen meeru Touba taxaw na ngir jàppale jigéen Touba ak jigéenu Mbàkke ba fi may wax itam ñu ngi négocier ak ay banques yoo xam ne nii euh, fas yéene nañu taxawal ñooy banques yi ngir que ñu mën a tàppale finance jigéen ñi financer euh, ndaw ñi. ah comme li jigéen ñëpp rek comme ñoom nangu nañoo liggéey bari nañ jom bu ñu leen joxe ay suuf ñu liggéey ñu jox leen financement ñu ñu ku nekk la nga xam ne moom nga métier ma nga jàng nga ne ca te financement nag loo ci mënti dégg jàngal nit ki métier ba pare da ceebaax di ay kàddu yu Abdoulaye Diagne taataan desandi kon si bëccëg bu ni mel ak nag Ba ma soxna APR yi féete kon sa Mbàkke tànn dara jaale ko seen i xumbute eh, ku ni nag dafa jàpp ni kon jot na nag jigéen ñi daal amal ak mbooloo si seen biir mënal seen bopp taxawal ay kuréel ak GIE ndax kat nguurug Sénégal si boppam mënul utal ñëpp am xëy Gallo Ba ñuy teewlu ay kàddoom ak Abdoulaye Diagne. xale yi am généralement pour mooy formation dañuy miser ci formation mais loolu dafa nekk loo xamante ne maire Mbàkke moo ko war def. te jàpp naa ne taxaw gu ci boo tax ab dëkk dañ koy jox ñu ko mën a yor ñu xam formation professionnelle xam accès à l'emploi xam luy santé xam luy éducation loolu mooy base pour ay ndaw mën am liggéey te jàpp naa ne instant bi ndaw yu Mbàkke am nañ yaakaar ci régime bi nekk en place te man jàpp naa ne sax président Macky Sall li jigéen ñi wax moo la ko gën a xam xam na ne Mbàkke tey fi mu toll ci position géographique am ak géostratégique am ci réew bi yayoon na ay responsabilité yu mag ñu jox ko waa Mbacké pour mu ñu mën a def la portage politique pour mën a fësal li nga xamante ne mu ngi koy liggéey jëmale ko si jigéen ñi moo jigéen ñi da ngay fexe suqali pour ñu mën a suqali askan wi jigéen nag boo bëggee suqali da ngay fexe ba suy jàng l'école nga bàyyi ko jàng ba jàngam jigéen boo ko bëggee suqali da ngay fexe bu am liggéey am ci lu jàpp di si yëngatu jàppale jigéen di jàppale waa jàppale njabootam jàppale ay doomam jigéen dañoo bëgg ñu wër mën a jàppale askan wi mën a jàppale jigéen wi donc lépp loo xamante ne mën nañ ko def pour ñu am ay financement pour ñu mën a am santé bu baax pour ñu mën a am liggéey loolu dañ ci taxaw xasun tànk tubéy di jàpp naa ne président Macky Sall dinañu jàppale pour ñu la mën ma ñu bawoo Mbàkke wutali Linguère foofu te jigéen ña ñu ko joxante woon dig daje sa mairie ba ngir nag darajal sargal bëccëg bi nga xam ne rek moom la ñu leen euh, jagleel mu nekkoon ak ndajam waxtaan sottinte xalaat tomb bañ sa tànnoon mooy ngir jigéen mënal boppam euh, si wàllum koom andikoon ban yoon la ñuy jaar sa Linguère Mass Ndiaye comme ñu ko yeneen gox yu nekk ci diwaanu Sénégal di defee fukk ak juróom-ñeenti communes yu nekk ci département bu Linguère ñoo daje sa mairie ba ngir màggal bis bu ñu jagalee jigéen ñi. la tey suñu bés dañu am benn thème jigéen nan lay def ba mënal boppam ñu noot jafe-jafe yi àdduna yi ci loolu ñu wax ñu waxtaan dañu xool suñu réalité département bi li jigéen ñi di dund ñu tànn benn suuteen ñun ñu ne nan la jigéen di def ba mënal boppam ci wàllu koom-koom ñu seet fan lañuy jaar lan lan war a mën a def ba mënal suñu bopp ci wàllu koom-koom ndaxte suuteen boobu boo ko xoolee dugg na ci plan Sénégal émergent bi muy xalaatu président Macky Sall ab conseillère départementale saisir na occasion ba ngir ñaax ay ñoñam ñu xeex lii di sëy bu teel. mariage précoce bëri na fi lool surtout dans les zones les plus reculées maanaam zones yi partenariat aussi ci dem ci département bi lépp rek pour doole jigéen pour xamal ko àq ak yelleefam pour xeex les mariages précoces pour xeex violence yi nga xam ne nii jigéen ñi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy subir. nguur ak Sénégal war naa def kemtalaay kattanam ngir dakkal lu ñaareelu xaaju bi lépp jotaay xibaar bi ti réew lay doon si tënk démb juróom-ñetti fan ci weeru mars camp bu munissement bu kii daal amal na kon ay sox roquette ak ay obus force onusienne bu Mali xamle lu ni mel sip communiqué ñetti nit kon ñoo sa ñàkk seen bakken muy benn soldat bu fare kon sa camp MINUSMA ak nag ñaari civil ña sa amee ay gaañu gaañu xala sakkan lool mel ni kon juróom-ñett sax wàññi nañu leen si casque bleu yi nga xam ne nag euh, ñoom fa la ñu féete te ñu si jële si ay gaañu gaañu Euh, takkadeer yu euh, Tchad ak nag yu Nigéria féete sa sud-est euh, bu Niger amal ak cong ci kaw nag waaye fippu yu Boko Haram te ñu nag nekk sa Nigéria ni ki démb la woon ba fii nag bilang ba siwala guñ ko waaye nag jàppale ni ñu sa jële ay gaañu gaañu sakan la te nag bii mooy ñetteel bi yoon takkadeer yooyee di daw si kaw di dal si kaw islamiste yu Boko Haram sa Abidjan kon la teeri jee tey ji altine ji nag mooy bés bu mujj bi ñeel atep Simone Gbagbo ak nag naataangoom ya ñu tegandool loxo tollu si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett bokkoon si nguurug Laurent Gbagbo ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weerub décembre 2014 la ñu door kon bileb atte muy bu njëkk ñeel fitna ya doote ko si jongante tabbu njiitu réew ma 2010 2011 ba taxoon ñetti junni si ay doomi aadama ñàkkoon seen bakken dogal ba nag ba war a wadd si kaw euh, Simone Bagbo ak ña ñu tegandoon loxo euh, tey jii lay doon ndax kat tey jii la àtte bi di buura euh, tàggat yaram kon ngir ndar kepp bi lépp jotaayu xibaar jongante réew Afrique soxoon na U20 yi sunu gaynde yi démb Nigéria da leen mujj daan ñetti ball ci benn lan wane nag démb tax na ba ñu bëri jàpp ne kon sunu gaynde yi seen équipe bi dafa desub yëngal soxna Fall. Sénégal la ji ci ndoxteelam am match ouverture buy ñeel championnat d'Afrique des nations ñi amul ñaar fukki at Sénégal dafa nërmeelu ci kanamu Nigéria ñetti bal ci benn la ñu ko daan moo ne day bi ñu tàmbalee rek dañoo gis gone Nigéria yi wane xar kanam boo xam ne dal na xel ci noon ni ñu daal di dugal ñaari but but yoo xam ni ñetti simili sax doxul ci seen diggante ndax but bu njëkk bi ci juróom-ñeenteelu minute bi lañu ko dugal ñu dàbbali ko waa ci fukk ak ñaareelu minute bi muy lu am ñu daal di xool fi nga xam ne doxul ci lionceaux yi ñu daal di koy euh, jëfandikoo ba tax ñu mën a gagné bi le Sénégal de moo ne ñëwoon na sax daal di réduire score bi Sidi Sarr bu Mbour Petite Côte moo defoon li nu mel amoon nañu yaakaar ni mën nañoo ñëw daal di tolloowaat ak waa Nigéria wala sax ñu romb leen waaye gis nañu rek Nigéria da leen sëpp ba far dugal ñetteelu but bi ñetteelu but boobee sax moo leen may ndam ci première mi bi muy lu metti ci gone Joseph Koto yi nga xam ni ab defet la ñu duggee ci compétition bi kon lu ni mel war a firndeel rek ni am na yu bëri yuñ ci mën a indiwaat ak defar ñu seetlu tamit ci équipe bu Sénégal bi ay maladresse waaye tamit ñàkk application mu mel ni suñu mbébét rek mooy terminer ci carré bi ngi daal di fa participer ci coupe du monde bi jaajëf soxna Falkal jàngeen jëf mbokk yi safoo seetaan seen TV bii lépp jotaay xibaar kon daal dina buur dig de 13h lay doon ak Amina Gueye ci kàllaame nasaraan si beneen jotaay xibaar 7h30 ëllëg ma El Hadj Ahmed Aydara 7 na mu fi rek dikkaat jukki leen xibaar yi ci kàllaame Kocc ba mu jàppandi gannaaw ci loolu nag bëccëgu jàmm ma leen koy ñaanal te di ko sàkku ci yéen.